suuratul baqara yàlla dañu ciy nettali ni mu bindee suuf ak ni mu bindee asamaan ak xeeti gàncax yi mu saxal ci kaw suuf yoo xam ne wute nañu couleur wuutee ay caf nga te la ci gën a yéeme menn ndox rekk moo leen arrosé yàlla ci ndox mi mu jëlee ci niir yi ci la sax ci la saxal kaani mu wex xat mu saxal ci limon mu forox mu saxal ci banaana yeeg pom yi mu saf suukar kon yàlla bu nekkutoon xakiim bu tawalee waa kaan yi ba ñu ñoral day wax ne téye leen seen kaani yi ma tawal ñi ñi nga xam ne seeni gàncax dafa war a saf suukar ci diggante pom yeeg banaana yeeg jaaju bu paree tamit mu seet weneen xeet wa ci ñi nga xam ne lañuy bay dafa nekk lu forox waaye mennam ndox rek yàlla saxal ci gàncax yu wutee couleur wutee caf nga kooku rabbul izzati wal jabarul rek moo man moo tax mu ne allazi mooy buur ba nga xam ne jaxala bind na làkkum ñaan leen al suuf firaasan mbir mu muy lal bu la neexee daw bu la neexee toog bu la neexee tëdd te loo fi yàgg yàgg du la sàpp foo nekk fu suuf bu yàggee sàpp avion li muy neex neex boo ci yëgoon ñaari waxtu ñett juróom wàcc rek ngay bëgg boo yéegoon ci bato yi nekk ci biir géej gi balaa ñaari waxtu ñett wàcc rek ngay bëgg waaye suuf nag loo fi yàgg-yàgg gën fee bëgg yàgg moo tax kon moo mooy moo def loolu suuf bu ko neexoon mu nekk luy rëngi-rëngi yëngatoog ñun ñu dee comme ni ngeen koy déggee ci yeneen i réew yu bari yàlla nag musal ñu ci lu dul ñam namu ci ñoom ak nattu te ñenn rek la ci ñu bëree bëri ba tey fa axraja mu génnee bihi ci ndox moomu nga xam ne moom la jëlee ci niir yi samaraati xeeti meññant yu wuutee ay caf nga wuutee ay couleur risqan mu muy wërsëg làkkum ñeexal leen ngeen man cee lekk man cee leel seeni bàyyi may kon fala tajaxaloo bu leen def li laay ñeel yàlla andaadan ay ndend di jaamu ñeneen ñoo xam ne mënuñ bind dara wa antum tamit moomu yéen tax la mun a xam ngeen ne yàllaay bind waaye ñi ngeen wutal bëgg a wutal yàlla ay ndend di leen jaamu mënuñ bind dara kon boo bëggee noppalu toppal kii bind te bañ a topp ki ñu bind rawatina la loo xam ne kuy xiram yaa ko tabaxal sa bopp wala ngay yett ko am ci ñoo xam ne sax lañuy defar bu ñu xiifee lekk ko ci seen yàlla ya nag la gàtt kon suufa ngóog yàlla bind ko dëxal ñu ci njariñ lu fees tepp ba tax na gox bu ne réew mu ne lu leen mën a dund moom yàlla dëxañ na ko ca suusa ñu nekkul ci politique ak ci fecc ak taggante duñ jëggaani dara buñ nekkee ne nekk ñu yàccaaral di politique nekk mbu muñ dul summi fu ñu nekk tëgg ak fecc ba gën koo bëgg ñi leen ko indiloon su boobaa ci jëggaani dund la ñuy dee te ku jëggaani lu la dund da nga jëggaani lu la fecc moo tax réew yu Afrique yi boo xam ne li ngay li ngay dundee France la bàyyeekoo wala Amérique soo liggéey boo deexee boo feebaree tamit foofu rek lañ lay mën a yóbbu ñaareel wala garab bu jugee ko foofu ñëw mën laa faj kon lu jar a bàyyi xel aaya bii nag mu tofal ci yàlla ngi bëgg a wax ak musrikuuna yi ak munaafiquuna yi ñii weddi alquran ne alquran de yonent bi moo ko créé yàlla ne leen wax ju leen yee la te fekk yëgu leen ko ndax yonantu bi qurayshi yu la haashimi yu la arabi yu la li ëpp ci yéen ay arab ngeen lenn ci yéen haashimi yi na leen ñenn ci yéen qurayshi yi leen la waaw ñenn ñi nekk yeneen i famille ba ni tamim ak yi ca aju waaw su fekkee ne nag yonantu bi moom mii arab moo mën a créer téeméeri saara fukk ak ñeent muy 114 kon yéen ñii di arab comme yéen comme moom lu ngeen gàtt gàtt aliwa war ngeen a mën a defar boog fukki saar saar rek mooy lu am commencement am laam wa maanaa ca gën a gàtt innaa ataynaaka al kawsar di ñetti aaya la ca gën a gudd suratul baqara yàlla kon nag faatu bi ashri suwarin mislihi muftariyaat mënuñu indi mu ne wàññil naa leen juróom-ñeent yi léegi indil leen ma benn ñu jéem-jéem mënuñu indi dara mu ne du ko man ba fukk nag aaya bi bokk na ci maanaam li mujisaatul alquran bokk na ci maanaam irjaaz gi yàlla def ci alquran nga xam ne ñi passé ñi ñëw ba bay àdduna tukki ku mën a indi lu mel ni alquran am loolu lay wax si moo tax mu ne wa in kuntum bu ngeen nekkee bii raybin ci sikk mi maa ci la nga xam ne nazal naa wàccee nañ ko muy alquran ala abdina suñ jaam bi di sayyiduna muhammad faatoo na ngeen indi bi suratin ci saar min mislihi wu mel nii alquran ci nose mel ni alquran ci balaaga mel ni alquran ci solo lu faddu wa doxoo na ngeen woo sax suhadaakum seen yàlla yi ngeen jàpp ne yàlla lañ ñu ñëw dimbale leen min dooni laay tuduñu ay yàlla in kuntum dem nekk ngeen saadiqina di way dëggu ne alquran ji yonent bi moo ko kereel boppam fa in lam tafaalu su fekkee nag defu leen ko ngir ak lottu walan tafaalu tur ngeen ko def mukk su boobaa nag kon comme du ngeen du ngeen leen ko def du ko def mukk fattaqoo na ngeen ragal naara safara alati safara sa nga xam ne waquuduha mattam ma annaasu mooy xéeféer ña wala xijaaratu ak doj ya ñuy doj ya nga xam ne moom la ñuy jaamu ak xiram yi nga xam ne moom la ñu xettoon te safara waawa uiddat xadoof na ko moom yàlla lil kaafiriin ñeel xéeféer yi pour war leen cee mbugal mu ne su leen wóoree ne alquran mënul leen koo indi ci lu teew te du ko mën a indi ba mukk fa in lam tafaaloo walan tafaaloo jooju bokk na ci ijaasul quran du ngeen ko def mukk xoola ba ko yàlla waxee ba bés ni ci tey amul kenn kenn ku mën a indi lu mel ni alquran benn dof rek moo doon jéem te jéem guy def guy feeñal ak tële ñàkk a def desa kumba sa moo ko gën muy musalimatul kazaab moo taxaw wane day topp ngal wan naasiati naan wa wa zaariati sarhan wal xaasidaati xasdan wa taaxinaati taxnan xoolal wax bi soof jooju demaan na ba naan yaa dafdaxu bintu dafdaxay ni daalimantu naq naqiina mu ne ko yow mbott mi ñaari mbott jur la toujours maa ngi la dégg rek yaa ngi sab ndoxam la kaw band suuf lu waxi kon raqiqatun raqiqa la te raqiqatun fi di ko wax di ko ñaawal kon gis nga tamit bi bi yonent bi passé ñi fi feeñ ci saxaba yi am nañ jamono hante ku ci mën a indi lu mel alquran amut noonu passé taabiin yi nañ jamono hante ak ñoom ku ci mën amut gis nga di ñëw a ñëw ba ci Salmaan Ruus di mu yàggut mi newoon day jéem a sa sobote alquran ak yam waaye ba nga xam ne dañu mujj neenal deretam ni ko waa Irak yi ba ku ko gis rek ñu war a rey ñu a faat ak ñu mel ni kon alquran ku ko topp nga soof ndax laa yatihi l baatilu min bayni yadihi wala min xalfi yàlla nag saa yu waxee safara safara ba nit ñi jàq dana wax ak aljana ba ñu kontaanaat moo waral képp kuy waaraate kat war ngaa jàngee waaraate ci yàlla su fekkee da nga fee nekk di waaraate naan diriyànke yi di leen diglu nga naan aljana di leen jay ci seen létt yu bon ya ñu defar seen xeesal yaag yépp ñi nekk ca bañ xëy dugg safara la leen ko yóbboo yaa waaye soo fa nekkee tamit di leen ragalloo safara safara safara soo moytuwul ku la jàpp rek dana mujj toxal maanaam ond bi wala maanaam mu mu mu fexe ba jàpp beneen pos ko ci kale yi moo waral kon deel wax safara safara ba nit ñi jàq nga wax waxaat aljana ba nit ñi yaakaar ndax ni dafa war dund ci diggante ñaari maqaama baynal fi war raja deel yaakaar ba mel ni aljana bu ca kenn dugg yow lay doon léegi-léeg nga ragal a ragal ba mel ni safara bu ca kenn yow lay doon waaye boo demee ba toll ci la sukkuraat nag ragal sànni fële yëg ne li may bari bëri bàkkaar li may bon bon lu may bari bari ay toppaange war naa tey gën a jaam boo maanaam borom boo xam ne bu tabee la ku baax la ku bëri yërmande la ndax moo tuddee boppam innahu huwal barru moo tax mu ne wa na nga bégal yow yonent bi alazina ña nga xam ne amanoo gëm nañ amanoo dëggal nañ seen ngëm ci yàlla wa ameloo ñuy jëf saalihaati farataaki naafila yi nang leen bégal an na lahum an na bi maanaam bi an na lahum ci naka ñeel na leen janaatin ay tool te jiri yooyu dana daw min taxtihaa ci ronam ya al anhaaru sew nde yay ñeent te nag kullama rusiqoo saa yoo xam ne wërsëg gëleef na leen min haa ci aljanna yooya min samaratin ci xeeti meññanti risqan mu di wërsëg xaaloo ñu ne haada wërsëg wii de lazi mooy ma nga xam ne wala haada wërsëg wii lazi itam dafa mel ni wërsëg ma xam ne rusiq naa wërsëgalees nañu ko min qablu ci njëkk ñu dugg aljana lii de ngi pom bi nga jox ñu yow yàlla ak banaana beeg li ci nekk ci maanaam xëytu si yéeg mi ngi mel ni yañ doon naan ci aljana ak yéen doon lekk dañ doon naan ci àdduna ak yéen doon lekk yàlla ne déedéet wa uutoo joxeef na leen bihi ci xeeti meññent yooyu ak wërsëg woowu mutashaabihan muy aji niroog bu àdduna bi ci ay couleur te wuuteeg ñoom ci caf nga wala hum aji nekk la ñaan leen fiha ci aljana azwaajun ay soxna mutaharatu yoo xam ne dañ leen a laabal ci reegal ak ci taflit ak ci nandaxit ak ci xeeti sobe yëpp wahum ñoom ñoo ngi timit xaal doona way bél lañ ja buñ ca duggee timit dootuñ gën a kon gis nga yàlla kenn la mu ne bu ñu duggee aljana aljana ji ay sewndee ñooy daw ca roon garab ya sewndee ñeent la waaye bu ko tuddee bala koo firi ma koy firee ji ca suratul xitaal di xiimim bi mujj ci xiimim bi foofu la koy firee ji foofu la waxee ne anhaarun min maa in gayri asinin wa anhaarun min labanin lam yataxayar taamuhu wa anhaarun min xamarin lazada lishaaribin wa anhaarun min asalin mustafa kon dana wax anhaar ci téere bi lu bëree bëri bëri waaye ca xiimim rek ngay fekk mu firi ko benn sewnde bi day nekk ndox moo xam ne tàngul ba ëpp seddul ba ëpp bu seddee ba ëpp doo ca mën a naan lu bëri bu tàngee ba ëpp doo ko mën a naan benn ba dafay nekk maanaam soow beneen sewnde ba day nekk sàngara waaye sàngara soo sa bokkut ak bii ndax bii day yàq sa xel tabee day gën a nàmm sa xel ku muñ bii nag mën a naan ci bële ku naan bii nag doo mën a yegg ci bële ndax bii dafa xasaw sobew di yàq sa xel yàq sa jëmm indil la ay jàngoro yoo xam ne loo ci naan rek dencal lu ko xëpp ne da nga ko fajoo ëllëg beneen ba tamit day nekk lem goo xam ne tabaarakallaahu bu ñu segg la bu sell bokkut ak lem gi nga xam ne ay yemba ko boole boole ay matières yu wutee tabaarakallaahu nga door di ko door a mën a jëfandikoo léegi nag buñ duggee aljaana jooja ñu indil ñu xeeti furu yi ak xeeti siise siise yi buñ ko ne jàkk rek ne ah lii de mooy leen doon lekk ci àdd ci àdduna yàlla na leen mos leen da ngeen xam ne duñ benn da yëg ne caf nga yi couleur yi wut couleur yi ñoo niroo waaye caf nga yi wuutee na boo lekkee rek yàbbi saanik ne ah dëgg dëgg na couleur yi wuute ñoo niroo waaye caf nga yi wuutee nañ béeg bii duñ benn de moo tax mu wax loolu ne kullu maa razaqakum minhaa min thamarin rizqan lakum qaalu haadhaa allazii rizaqnaa min qablu wa utuu bihi mutashaabihan wa lahum mooy jigéen yi aljana ya duñ am reegal duñ am doom te seen digg doole seen digg kàttan lañ la koy joxe amul màgget timit jigéen gu ne mu ngi dund ci aasu fanweeri at ak ñett muy limab jàlla moo waraloon yonent bi ne màgget du dem aljana ba mu ko waxee waaja màgget may yooxu jël suuf sa di ko tot ca boppam ba yonent bi ne ko ngaa jàngoon alquran mu ne ah kay mu ne ko xanaa jàngoo mu ne inna ansha'naahunna inshaa'an fa ja'alnaahunna abkaara ci nii nga màggatee bu ñu la dugaloon bànneex ba sax da lay te nii nga duggee màggatee boo duggoon aljaane man nga koo salteel aljaane nag luy salte amul fa ak lu ñuy salteel kon gi sa digg kartam ci ngay dugg aljaane su boobaa tamit góor ñi noonu la ñuy toll soxna ya toll noonu góor gi gën a néew soxna ci aljaane gën a néew lu mu yàlla dana am ñeenti junne ci misaal ciy jànq juróom-ñetti junne ciy jeet téeméeri soxna yoo xam ne xuuru ay amul ñàkk kàttan amul dara moo waral kon na ku muñ soxna yi la lewut fii soo ëllëgee yàlla nag jox la ci soxna yooya te su boobaa yaakaar naa danga ca doyal kon nag te la ca gën a yéeme amul joxe dépense du la laaj dara xéewali duñ jeex te yow doo xam fu muy bàyyee koo doo ci am benn coon kon nag wutee naag aljana ci euh, euh, maanaam àdduna dafa wuteeg aljana ci yu bëri aaya bii tofal ci nag mooy inna laa laa yastaxi an yadriba masalan maa li ko tax a wàcc yàlla dafa doon ci téeréem bi ankabut ba tuddee na ko aw saar muy jargoñ tudd na timit weñ léegi nag yahood yi commencé naan waaw yàlla mi wax ne ku màgg la naka lay tuddee ci téeréem bu màgg bi ak moom màgg mi mbir yu xeebu yu ñàkk solo yu mel ni weñ ak mbir yu xeebu yu ñàkk solo yu mel ni jargoñ bañ waxee loola nag yàlla wàccee aaya ji wane ne man yàlla bàyyiwu ma benn détail lu mbir rëy rëy danaa ca lu mbir tuuti tuuti timit danaa ca te yéen ñi xeeb yoo da ngeen a xanaa xamul leen ne yoo mbindeef la mu tuuti mu yéeme ndax yoo li muy tuuti tuuti lépp luy maanaam tabaarakallaahu ñay di am rek yoo am na ko tay yoo am na lu ñay amut ndax ñay amul ay mbagg te ñay yoo am na juróom benn tànk ak ñeenti mbagg jaalar bi ko am bakkan ak bakkan ñay jaalar bi ko am tamit geenu geenu ñay mu nekk koo xam ne lu am yëg-yëg la lu yàlla bind yoo moo ci ëpp yëg bu la doon matt booy xaw dafa am yëg ñetteel bi yoon mi ngeen di lu yàlla bind moo ci ëpp fit moo am fitu fekk bakkan ak buur boo xam ne garde corps yaa ngi ko wër yore seeni ngànnaay mu dal ca bakkan ba matt ko te yoon mi ngeen di xeeb moo mën a fekk mbër mu entraîné nekk champion wu jamonoom mu daan ko te bëreewut ak moom ndax day ñëw rek pikiir ko feebar mu jëlee te maanaam jàngor dee kon yoo xeebuwut de yàlla bind lu xeeb yàlla bindut lu lu dul jariñ lu mu bind rek am na lu man moo tax xukamaa yu di wax ne fit wi nekk ci yoo bu nekkoon ci gaynde doomu aadama dootul dootul dundati ci kaw suuf ñépp dee nañ ndax da ngay tëju sa néeg nekk sa saal say soxna wër la say mu jéggi ñëpp ñëw dal ci sa bakkan loolu bu ko gaynde manoon kon ñëpp dee rek kon nag yoo nekkul loo xam ne lu xeebu la de kon arab yi danañu sadd ci ci yoo maanaam ñeme comme ni ñuy saddee ci lépp xorondong mën a dajale ak mën a fàggu dundam ba lenn ki ñoom danañu denc dundam juróom-ñaari xat euh, kon loolu lépp yàlla wane na kon binduma lu xeebu binduma timit lu tuuti lu ma bind rek am na njariñ te gis nga weñ yi ñeeni xeet ak ngelaw li bu taxutoon ak ñoom àdduna day xasaw ba kenn du fi dund xeet ak àdduna ñaara ko yóbbu mooy weñ ak ngelaw bu ngelaw amutoon weñ amut àdduna dana xasaw ba kenn du fi dëkk te ñaareel bi yoo ak weñ yàlla bind na ko ngir toroxal kuréy benn góor dafa mos a toog def discours weñ wi ñëw dal ci bakkan ba mu mu xëcc ko dàqal mu dalaat ca mu mu mu xëcc ko dàq ba mu ngi dagg discours ba benn waa ji ko xam nga ni tax yàlla bind weñ mu ne ko déedéet mu ne ko dafa bind weñ ngir toroxal jabaa bi na tey kàccoor ya ndax ñi lay escorté nag li ñuy mën a mën a yore sa sécurité sécurité weñ ak yow bokkul ci kooku moom kenn mënu koo kenn mënu koo dàqal boo fi nekkee tamit yàlla jox lay kër koo luyee bu na fay bu weer dee nga génnee ko léegi-léeg nga am locataire yoo xam leen a génnee benn janax yaa ngi sa biir kër mënoo ca dara mbóot yaa nga fa mënu ca dara yoo yaa nga fa te bu weer dee duñ la fay dara te dañ lay loxo kon yàlla xakim moo tax buur ne inna laa naka yàlla laa yastaxyi du bàyyi ngir xers an yadriba muy sadd masalan lépp maa lépp wow baxdatan yoola ba maa fawqahaa wala lu ko kawe ba mel ni ma mel ni maanaam eh, ba mel ni ñay waaye fa amal na daal ña xam ne amanoo gëm nañ fa ya'lamuun danañu xam ne annahu naka léeb boobu alxaqu mooy dëgg ju sax min rabbihim ku bàyyi ko seen borom waaye wa amal na daal ñi xam ne kafaroo weddi nañ fa yaqulun danañu wax ne maasa araada laahu an lan na mu yàlla bi haasa ci lii masalan ci léeb tamyiis la waaye yàlla nay dund dana réeral bihi ci léeb wii kasiran ñu bëri wa yahdi dana gindi bihi ci léeb wi ñu bëri waaye wa maa yi dund du réeral bihi ci léeb wi illal faasiqi ndara kàccoor ya ñoo ñaay ñam mun na alsina ñoo ña nga xam ne yanquduna dañuy firi ahdalaay kóolaren yàlla min ba'di miisaaq yi gannaaw ba ko yàlla feddalee te mooy topp yonantu bi gëm ko bañ a nëbbu ay melo wa yaqta'una ñuy dagg maa amara laaw la digle na yàlla bihi ci moom an yusala ba jokkeef ko te mooy jokku seen mbokk gi jokku sayyiduna muhammad wa yufsiduna ñuy yàq fil ardi ci suuf ulaayka yooye gaay melokaanu ñetti melokaan yu bon ñii um ñoom laa wax dong alxaasirun ñooma di way perte de kon gis nga ko dafa bokk ci seen jikko dagg kóllëre dafa bokk ci seen jikko ñoom munaafiquna yi dagg loo xam ne yàlla dig la ñu jokk ko dafa bokk ci seeni jikko yàq suuf di ko gàllankoor ci ak weddi ak tamit di feesal suuf tepp ci ay bàkkaar yàlla nag indi tabaarakallaahu istifhaam goo xam ne taajub la nekk kay fa takk furuuna kaawteef naka ngeen weddee billaahi ci yàlla wa kuntum te nekkoon ngeen am waatan di toppantal ma niyu ci seen biir ndiggi seen ndiggi waa yu góor yi fa axyaakum mu dundal leen maanaam ci seen ruxamu yaay yi gannaaw si gi mu génnee leen fa dundal leen ci kaw suuf ba seen diir jeexee su ma yumitukum topp mu ray leen su ma yuxyikum topp mu dekkilaat leen ci seen biiri bàmmeel topp nag ngeen jëm ci péncam yàlla ma ñu fay leen seen i jëf moo tax mu ne su ma topp gannaaw si ga tur joxoon def na dellu leen yéen ñëpp illahi jëmee leen ci yàlla mu fay leen seen i jëf huwa moom guur boobu leen fay seen i jëf allazi mooy buur nga xam ne xalaqa daganal na lakum ñaan leen maa ardi li nekk ci suuf jami'an li muy mboole seen lépp lu nekk ci suuf moo leen ko bindal tàggatal leen ko su waa topp mu jublu ila sama jëm ci asamaan fa sawaahunna mu mu jël leen sab'a samawaatin ñi di juróom-ñaari asamaan woo moom yàlla qadirun aji xattan la wala alimun aji xam la bi kulli seen ci lépp lëf de yàlla ak leen yéem naka ngeen ni a wéddee lu weddi naka ngeen di wane gannaaw loo xam ne lu gëmu la te mooy man buur bi leen jëlee ci lu xeebu muy toqantal ma niyu ma roof ko ci seen ndiggi yi waajur yi denc ko fa te lu sa waajur feebar feebar luñ ko opéré lu accident ba rëy rëy kenn du gis toqantal ma niyu mu tasaaroo fa ma ko denc kenn xamu ma jël ko denc mu jël dénk ko yaay ya ñu denc ko ci ruxum ya bala ma soob benn ngeen def fa ñeenti weer ma door caa war rooxu ngay lekk li seen yaay yi lekk di ca naan seen logement ba neex lool tàngut ba ëpp seddut ba ëpp seen lekk ak seen naan dara tardewut te mosuñ leen andil facture ñeen nekk te lu ma soob juróom benn weer moo ca gën a tuuti juróom-ñeenti weer moo gën a mat juróomi at wala ñeenti at moo ca gën a bëri comme imaamu Maalik yaayam na ko ñeenti at ñi ne ñetti at ñeen door a génn ci kaw suuf nag ànd ak lompañ lool mënu leen a dox mënu leen a wax ñeneen i ba ngeen xëy nekk ponkal man a wax mën a dox amu leen dara lu ngeen may njukkalee lu dul di ma weddi ci man mi leen jaarale fii yépp léegi nag gannaaw si loolu daa leen rayaat ni xar suuf dugal leen ci ngeen nekk fa lu ma soob ma dekkilaat leen pang leen indi leen ci mennam penc fay leen sama seen jëf yi ngeen doon jëf in xayran fa xayrun wa in charan fa charun kon de man yéem naa man yàlla naka ngeen mën a weddi ak fi ma jaar ak yéen kon gis nga ko aaya bi déggee ngeen ci ne la yàlla njëkk a bind waaye asamaan la njëkk a tàllal ndax bu bindoon suuf tàllal ko door a bind asamaan ñu gàtt xel ñi dañuy wax ne yàlla dafa taxaw ci kaw suuf door a bind asamaan moo tax mu ne wal arda ba'da zalika daxaaha kon nag suuf la njëkk a bind waaye asamaan la njëkk a tàllal léegi nag bind ko nag mu nekk mbaar mu yaatu mii yaatu waaye ma fa mu yem yàllaa ko xam te lépp bilaa imaadin taraw naha suuf tamit gis nga ni mu la ko yàlla dëgëralee moo ko xam waaye toujours ci alquran bu yàlla tudd suuf da koy mufratal ni al ard buy tudd bi maanaam asamaan da koy jamxo li ko waral suuf juróom-ñaar la asamaan juróom-ñaar la waaye suuf juróom-ñaari yépp ñoo niroo couleur ñoo niroo matière juróom-ñaari matière yi niroo yi nag ak maanaam couleur yi niroo yi mu génnee ko jàppee ko muy benn moo tax mu def ardu doo wax ardu na ñaareel donte dagal nañu yégal ko ci jamu muzakkar saalim rafaahe waaw lu muy defati yaa waaye toujours samaawaat ngay jàng moom juróom-ñaar la waaye couleur yi dañoo wutee ba tey tamit ah, gannaaw matière yi tamit dañoo wutee soo doon seet asamaan su njëkk moo asamaanu ñaareel niroo tolloo niroowuñ couleur ak ba ca ñetteel ba ba ci juróom-ñaareel ba asamaan su ne nag ak moromam doxab juróomi téeméeri at la asamaan su njëkk si ak suuf si tamit doxab juróomi téeméeri at la benn bi boo ko seetal fa mel ni fuurit mu way muñ dajale bu njëkk bi boo ko laalee wala nga xool ko loolu lay jox bu ñaareel bi dafa mel ni per bu mel ni verre bu ñu rattaxal bu weex bu netteel dafa mel dañ ko liggéey ci matière weñ gu ñuul bu ñeenteel dafa mel dañ ko liggéey ci përëm ba tey maanaam bu juróomeel bi dafa mel dañ ko liggéey ci xaalis matière bi juróom-benneel bi dafa mel dañ ko liggéey ci wurus juróom-ñaareel daf mel nañ ko liggéey ci ay pene ay per kon couleur yu wuutee yooyu ak matière yu wuutee yooyu moo waral toujours fu ko yàlla tuddee da koy jamxo mu annas saalim te mooy rafaaxee dàmm lu muy defati rek kasab léegi nag aaya bi tofal ci yàlla ci jàngal xalifa xilaafa ju mu xilaafaal suñu maam aadama nga xam ne moo njëkk a nekk xalifaam yàlla ci zaahir ci kaw suuf waaye ki njëkk nekk xalifaam yàlla ci baatin mooy seyduna muhammad moo taxoon ibnu farid ba ko satahaat yi daane wëlli wi daane mu waxee ci làmmiñu yonantu bi ne inni wa in kuntu ibnu aadama suuratan fa lii maanan waaxidun fa lii maanan waaxidun bi ubuwati fa lii maanan shaahidun bi ubuwati mu ne su fekkee de dama nekk di doomu maam aadama am na aw melow wuy seedee man maay bàyyi loolu fa waxee ci làmmiñu Seydina Muhammad ndax wëlli bu nekk ko sa taxaat daanee la mu jeex rek ca loolu lay waxee bu jeexee ci jëmmi yàlla ja làmmiñu yàlla lay waxee bu jeexee ci jëmmi Seydina Muhammad làmmiñu Seydina Muhammad lay waxee bu jeexee ci jëmmi Isa wala Moussa ci lay waxee Cheikh na Tijaan nag boo gisee mu gën a foor yeneen wëlli yi sa taxaat yooya musul koo daane ba mu wax lu hëpp xel ba mu wax loo xam ne bu bu paasee dafa nekk lu xel mënta gëm wala lu jëf mënta lu cër mënta jëfandikoo moom toujours lu mu rëy rëy rëy mu nga ànd ak sa bopp moo tax ba mu ne xaddamaa yo haataani ala raqabati kulli waliyin tabaarakallaahu muhammadul xaali laaj ko ne ko da ngaa nekk ci màndi gi daan daj waliyu wala yaa ngi ci wuri ko maa ngi ci wuri de mu door waxoon na loolu mu ne ko wax na dëgg waaye benn tànkam balaa waxoon te ki jamonoom la ko tënkoon te ñett yi fa taxoon jamonoom lépp moo ci ëpp xam-xam moo ci ëpp wilaaya moo ci gën a rafet askan man nag sama ñaari tànk yi laa wax te maa ko wax min na dun aadama ila naf fi suuf xaddamaa ya haataani laa wax kon ba bay àdduna tukki dootoo diggati ko ko ne ko ndax yàlla dafa ci bind wala la gën a jox ko lu gën a rëy lim la jox wax lu gën a rëy li nga doon wax mu ne ah kay kartanal yàlla man na ko comme ni manee bind gën a foor jox ko lu gën a rëy ko jox ba koo ko wax lu gën a rëy la yonantu bi daan wax waaye ba ko kartanal la ma ne coobar ngeen namu ko kon aadama ngoog premier xalifaam di premier xalifa yàlla ci zahir ci kaw suuf li ko waraloon nag naka jekk suuf amoon nañu fi dëkk am ñu dëkkoon ci asamaan di ay malaaka ba nu jaam dëkk ci kaw suuf ci la iblis bokk bañ fi nekkee nag di tuurante dereet di yàq suuf indi ak bewte yàlla hebal malaaka yi dëkkee asamaan su njëkk si dàq leen ñi dëkk ci doj yi ñi dëkk ci montagne yi suuf nag amatul ku fi dëkk diiram lu mat juróom ñaar fukki junney xat yàlla nag dajalewaat malaaka yi ne leen damaa bëgg a undi ku ma wuutal ci kaw suuf moo tax ñu ne ko atufsidu fiha atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dimaa ndax dangay ngay ci kaw suuf ku ko yàq comme ña fi nekk nañ ko doon yàq yàlla na leen inni alamu ma la taalamun xam naa lu ngeen xamut ki ma fi indi xam naa ci moom loo xam ne xamu leen ko da danañ ci yegg loolu tamit li ciy jàngee mooy ndeke diisoo lu ama am njariñ la loo nekk nekk buur wala la nekk kilifa ak kër gi ak lu sa may rëy rëy rëy soo bëggee sa doxalin yàgg sa doxalin jub del diisoo mu ngi ko séq ndax yàlla bu ko neexoon rek mu xëy ne sëpp aadama ci kaw suuf te du diisoo kenn kon bu ko defee day jàngale yonentoo ëpp ñépp xel waaye la xel may rëy rëy yàlla defe na ko del diisoo wa shaawirhum fil amri kon ndeke diisoo nekk na lu ama am njariñ xukamaa yi daanañ wax ne ñett duñ doylu ci ñett nit lu xelam rëy rëy rëy du doyloo diisoo boroomi xel yi ñu yokkal ko fas lu mën a mën a daw du doylu karawaas buñ koy coupé wala di ko ko dóoree bu doon léegi nga ne oto yi lu oto ba baax baax mënta ñàkk essence wala gasoil buy tax mën a def bu ko amul du tàkk naka nga mën a jigéen lu mu fegu fegu ak lu mën a mën a jaamu yàlla du doylu ci ut jëkkër joo xam ne moo koy wéttali parce que xarisa la boo xam ne yàllaa ko ko mooñaale mu waral kon diisoo nekk na loo xam ne lu ama am njariñ moo tax tamit yàlla diisoo malaaka yi ne inni jaailun fil ardi xalifatan waaye tamit gis nga ko bam ne inni jaailun fil ardi xalifatan ñoom tamit ñu taxaw ne ko ndax nga fi indeetee keneen te ñun ñoo gën a xeyoo nekk fi xilaafa kon nekkee daal li ngay déggee mooy buur buñ ko mas a fal fokk mu am ñu la contre nekk ca gannaaw ne kii fal gi ñu ko fal yeewoo ko amul benn place bu ñu mës a jox nit te maanaam nit taxul taxawul discuter nit ñi xëyoo moo tax yàlla bi mu njëkkee def aadama muy xalifa malaaka yi ne ko ñoo na xëyoo ndax wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak gis nga tamit yàlla ba mu jëlee banu israil andil leen buur bi ñu tuddee ñu taxaw taxaw discuter ne ko annaa yakuunu lahul mulku alaynaa wa nahnu ahaqqu bil mulk ndax yow yàlla naka la kay defee ki bëgg a def kii buur wax loola yonentu ba ñun ñoo ko gën a yoo nekk buur mi ngi nii yow dara boole ko amul xam-xam yàlla ne ah kay inna laa stafaawa aleykum man yàlla tànn naa ko ci yéen tëbb ko xam-xam ak jëmm ju rafet kon tamit man yàlla maa tëbb maa maa tànn aadama ci seen kaw inna laa stafaa aadama wa nuuha wa ala ibrahim wa ala imran ala alamin kon naka jekk loo bëgg a samp rek na diw la rek dana am ñu taxaw opposé opposant mënul ñàkk ci àdduna loolu la yàlla lay doxal bu doon kenn ñàkk maanaam oppose ku ko opposé kon yàlla ñàkk ko waaye tey la ko gën a bëri kon moo tax mu ne inni naka man jaailun aji def si laa jaail bi maanaam sa ajaxal fil ardi ci suuf xalifatan kuutal koo xam ne dama koy roof sama melo muy doxee sama melo yore sama kàddu xaaloo malaaka yi ne ko atajaxalu ndax dangay ngay defati fiihaa ci suuf man koo xam ne si dana yàq fiha ci suuf ci ay moy comme na fi ba ndiw jaar nekkee woon di ko yàq wa yusfiku muy tuur dima a deret comme na fi ba nu jaar nekkee woon di tuurante ay deret sama borom ne leen ñu tofal ca nabi ne ko wa nax nu ñun nu sabbihu danañu sabaal bi hamdika mbir mu ñu làmboo sant sa wa nu qaddisu danañu sellal lakka ñaan la lépp lu xelloo yow lañ lay jox lu xelloowu tax yow duñ la ko jox damay ragal na nga indi fi koo kon bëgg na ko war na ko ñun ñoo xeeyoo li nga bëgg a def xaala sama borom ne leen inni naka man axlamu xam naa maa la taxlamuuna loo xam ne xamu leen ko ci ak maslaa ak li ma nëbbu ci moom ci kuy topp ak kuy mooy xamu leen ci dara kon gis nga boo gisee ba nu jaan yi wax lii dañoo xool ci nit fekk ci moom ñaar yu bon waaye gisuñ yàlla nëbbu leen benn bu baax nit koo gis dafa ànd ak ñaar yu bon ak benn bu baax xam nga dañ koo njëkk wax ne ko man wayus fiku dimaa wayus fiku dimaa ñaar ñaar yu bon a mooy benn bi mooy mer baaxut beneen bi mooy bànneex maanaam topp sa bànneex doomu aadama dañ ko wax moo ñaale moo ko koy ñulu kooku moo koy yóbboo mu yàq suuf ci jaxasoog jongoma bi mu war la jaxasoog ci xiir ci lekk ci alal joo xam ne lewut ko ci wax joo xam ne bari na te benn njëriñ nekkut ca te yàq ab diggante ak yu mel waaye tamit tatak mer gi nekk ci yow nga xam ne bu melee rek nga gis sa bët yi maanaam buqeeku nga gis maanaam sa siddiit yi baat yi taxaw sa bët yi xonq cor loola moo la yóbbu mu mel ni ngay tuur deret koo gis moo lay nit rek faat moroomam bakkanam rek xel ma ni fa maanaam euh, mer gaa taxaw tatak mer ga ba mel ni safara buy taxal ci kawam mu tàngoor ba mujj def loo xam ne buy paase rek mu rëccu mu ne ko nag kon yow ki nga bëgg a def xalifa ci kaw suuf gis naa ci moom ñaar yu gis naa ci moom tat bànneex bu ko yóbboo mu yàq suuf dana ko mu tat tëdd ak ko yóbboo muy lekk xalal ju ko lewut dana ko yóbboo muy xëccoo nguur dana ko yóbboo tamit muy wax lu mu wax di ko jëf ci juróom-ñaari cër yi nga ko jox yépp waaye gis naa ci moom tat mer boo xam ne bu ko roofoo rek mën naa tukkal adduna yàlla ne na inni a'lamu ma la ta'lamun inni a'lamu ma la ta'lamun mooy xam naa ci moom benn bu baax boo xam ne bu ko toppatooxee mën naa dem ba ñaaram yu bon yi nëbb loolaay lan mooy xel ma am solo mu ne ko nag moo ñali naa ko ak xel moo xam ne su ko toppee xel mi di ko conduire xel maay dem ba effacer tatak mer ci moom ba dootul rayati kenn xel maay dem ba effacer tatak bànneex ci moom ba dootul yàqati suuf kon ndeke kenn ku ne am nga ñaar yu bon ak benn bu baax waaye benn bu baax boobu boo ko toppee dana dem ba nopp ñaar yu bon yi boo ko sàgganee nag ñaar yu bon yi moom bu ñu xëccoo kenn kenn rey ko ndax ñaara man benn kenn du yàlla léegi nag aadama ngoog yàlla bind na ko bi koy bind nag dafa yónni malaaka jibril la njëkk a yónni mu dem war a tibb suuf yu wuutee ci ay ndox yu wuutee ba mu demee bëgg a tibb rek suuf ne ko maa ngi muslu yàlla ci yow bul tibb ku yàlla yi bind mu nekk koo xam ne boo lëggee bu ko mayee ñi koy lakk di ma lakkaale bàyyi ma fi mu yónni Mikaayil suuf wax ko loola mu bàyyi ko fi mu yónni maanaam eh, Israfil suuf wax ko loola mu bàyyi ko fi Asrail suuf wax mu bàyyi ko la yónni suuf wax ko loola mu bàyyi ko fi ba mu yónnee Asrail la muy malakal mawti suuf wax ko la mu wax moromam ya mu ne ko man tamit muslu naa buur ba day ne yàlla di ma yónni lan ma yónni ma fekk ko fa di ko fa bàyyi foog ma tibb sooy dee ak sooy ba mu ko indilee yàlla nag yàlla ne ko waaw xanaa suuf waxu li mu wax sa morom yi mu ne ko ah kay waaye man tamit wax naa ko lu sama morom yi waxut bu day ni yow doo ma yónni lu ma fekk ma ko fay bàyyi mukk yàlla nag ne ko kii may bind yow laay su ma soxlaa rox gi yaa ma koy jëndalil soo koy jëli doo ko yërëm ngir ñàkk ngir feebar ngir njaboot waaye soo koy jëli tamit doo ko ragal ngir buur bu mu ñu ko ay garde corps yu koy wër yooya moo tax tamit yàlla a malakal mawti lañu lañu lañu booleeg mooy doggali suñu roox yi di ko yóbbul yàlla ci kàttanam ku lee tawafaakum malakul mawti lazi wukkila bikum summa ilaa rabbikum turja'uun moo tax moom du yërëm bu doon ñëw takk soxna bees njaboot bu ndaw gi wër ko mu tabax këram yaakaar ko mu ñëw rek jëlee ko fi loolu lépp mu ñàkk ko wan ko gannaaw yërëm lu na bu doon yërëm du fekk jigéen buy matu doom ya dem bay génn mu ñëw doggalee yaay jaag doom ji yëpp wala leen yóbbu foofu ku am yërmande mënuloo ko def bu doon ragal tamit du fekk buur tabaarakallaa bu mel ni buuru Amérique wala buuru Angleterre wala kenn ci buur yi nekk Europe garde corps ya mu am ak la koy wër sécurité ba na mu mel mu ñëw jël bakkan ba kooku ku am fit ku am maanaam fit maanaam foofu la mën a yem moo tax mos nañ koo laaj nga ko ndax mos naa yërëm mu ne ah benn yoon ndax mos ngaa ragal mu benn yoon mos ne mos naa fekk benn jigéen buy taxam ci àll ba mat wa dal ko yàlla ne ma bëgg naa nga jëlee fi bakkanab yaay ji te bàyyi doom ji te ci digg àll ba la ba doom jee daanu rek ma jël bakkanab yaay ja keroog de moom wax dëgg yàlla yërëm naa ko ñu ne ko ndax mos naa ragal mu neex a kay mos naa yàlla yebal ma benn buur bu ma war a jël li koy garde ci ay nit ay junne junne la kenn ku nekk ma nga xulli bëtam ya yore bi maanaam ngànnaayam la di xool di ngir wàllu sécurité ma xam ne keroog xaw naa tiit ne ñii de buñ ma gisoon rek tey du doy yàlla nag xamal ko ne ko liir bi nga yërëmoo ngir jël bakkanam yaayam ba mooy buur bi nga tey ragal ngir di jël bakkanam ba kon yàlla rek a yàlla mu bind aadama nag ci melo inna laa xalaqa aadama ala suratihi loolu la yàlla wax ci hadiisul qudsi waaye loolu dafa bëgg a wax ne yàllaa ko xabal melow jalaalam wa ak melow jamaalam wa aadama yàlla roof na ko jikkooy yàlla ndax ku bëgg a nekk xalifaam yàlla da ngaa war a yore jikkooy yàlla aadama moomu nag yàlla bind ko jox ko juróom ñeenti pax juróom-ñaari pax yépp ci kaw bopp la nekk mooy nopp ya bët ya paxi bakkan ya gémmañ ga waaye yeneen ñaari pax yi nekk ci ronam bii dañ ciy tuuree ndox bii ñu ko bii maanaam leneen la ca aj mu jaaral bi ko nag leen lu nekk mu boole ko moom moom aadama booba nag juróom-benn fukki xasaba la woon ci gudd ñaay ba tey sax bu ñu la waree bàmmeelam ba bàmmeel bu gudd la aadama bu ëllëgee tamit bu ñuy dem aljana ñun ñëpp suñu jëmm yi noonu lay toll juróom-benn fukki xasaba waaye suñu jëmm yu tuuti rawatina africain yi koo ci xool boo koy ba max muy bëgg a daanu kooku bëgg a dugaleen aljana bànnee xam ba ak mënu ko attan moo tax kenn ku ci nekk booy dekki ëllëg ci jëmmi aadama ci melokaanam réyaay ga noonu ngay ndax nga mën a attan soxna yi na nga mën a waaye suñu jëmm yu tuuti yi ku ñu dugal aljana ñu seet kon aadama léegi nag yàlla toujours ku mu fal moo lay jox nu mu la falee ba mu ne inni jaalun fil ardi xalifatan ñi bëgg taxaw di ko kontu ak lañ wax mu ne taxaw leen nag kii ma fal dama ko utal yóbbal yóbbal ba nag mooy xam-xam ku bëgg jiite da ngaa xam-xam waaye ku bëgg jiite nit ñi ci ay xat bëgg leen jiite ci jikko bëgg leen a jiite ci juddu bëgg leen a jiite ci pexe te xam-xam nekkul fa du mujj fenn du dem beneen fen xam-xam mooy ilimaan mooy jiite lu mu jiite lu mu jiite loola baax lu mu mën gannaaw loola yàpp yàlla nag jiital na aadama ci kaw ñu ko mag ci kaw ñu ko ëpp luñ jaamu yàlla waaye nag xam-xam rek a tax kon nit ki bu la ëppee jaamu yàlla ëpp la ay xat ëpp la juddu te nga ëpp ko xam-xam bu ngeen dajee yaa ko a jiite moo tax mu ne wa allama xamal allaahu ja wa allama xamal na yàlla aadama aadama al asmaa tur ya kullaha yépp summa topp gannaaw ga aradahum mu gaaral tur yooya alal malaakat ci malaaka yii wax ne ko atajaxlu fiha man fa qaala sama borom ne leen ngir yedd leen am bi ooni soro leen ma bi asmaayi haawulaay ki tur yi gaay tur yi yii seen jëmm yi wax leen ma ñu tudd otoom fa woon ordinateur am fa woon caméra fa woon lépp lu ñuy soxla ci àdduna man fa woon jëmm yàlla ne leen lii nu mu tudd xamuñ ko in kuntum dem nekk ngeen saadi xëy di way dëggu ne mënumaa bind ku leen ëpp xam-xam mënumaa bind ku leen gën a baax xaaloo malaaka yi wàcc si ne ko subhaanaka tudd nañ sat sell laa ilma déet xam lanaa di ñu ñeexal illa maa allamtanaa lu loo ñu xamal te li ñu xamal nag lii bokkut ci innaka naka yow anta yow lewee laa wax tawkiid la alalimu yaa aji xam mbir yépp alxakimu yaa aji xere ya ba mbir mu ne fa mu dëkk rek nga kon gis nga ko ba yàlla dessin mbooleem jëmm yu fi nekk tey ci kaw suuf ne leen lii num tudd lii num tudd xamuñ ca dara yàlla nag door a wax aadama ne ko nag kay xamal lii num tudd am aadama ne leen lii mooy ordinateur lii lay jariñ soo bëggee dugal site bi nangam di fii nga koy dugalee war leen leen lii mooy caméra lii lay jariñ lii mooy rajo lii mooy télé lii lay jariñ lii maanaam mooy mooy mooy mooy tabax lii mooy lal loolu lépp xamuñ ci woon dara ma xam-xam mooy jiite kon aadama ci lim daanee malaaka yi mooy xam-xamu ilmul luxati ci la borom xam-xam yi jële nag xam-xam yépp gannaaw wéetal yàlla bi ci ëpp xam-xamu luxa luxa nga xam nam lii lii la lii lii lay jël ci la leen aadama daane yàlla nag ne jiitu te ki jiitu warul dañ mukk ñi koy teral di ko màggal kon nag yow aadama yaay maître bi tey ñii say élève lañ jàngal leen li nga xam te ñoom xamuñu ko bu ca bàyyee ko tamit ñoom ñu màggal sujjóotal la topp la ndax ay maître kat ab maître ay élèves war nañ koo màggal moo taxal sama borom tafal ci nii ne yaa aadama hee yow aadama am bi hum bi asmaayihim tuturi yi leen gaa yi wax leen lii mooy lan aadama ci lii mooy télé lii mooy rajo lii mooy ordinateur lii mooy caméra nangam ak nangam. falammaa am baaxu mbaa xamee ne solo na leen ko. solo na leen bi asmaa'ihim ca tur yooyu yépp sama borom xaala ne alam aqul nda waxu moon lakum ñaan leen inni naka man alamu xam naa xayba samawaat ni fàmbi ci juróom-ñaari asamaan wal ardi ak lépp lu fàmbi ci juróom-ñaari suuf xam naa ko wa alamu xam naa maa tubduna li ngeen doon feeñal ci seen wax naan atajalu fiha man yusidu fiha wa maa ak la nga xam ne kuntum nekkoon ngeen takkatu mun a di ko nëbbu naan nañ baxi suñ borom mu bind waaye mënta bind ci ñu gën a màgg aadama nag léegi solo na leen lépp leen lu nekk la muy jariñ mu wax leen ko ñu door koo xam nag yàlla na leen kon aadamaay seen maître bi ci des mooy wàcc leen ngeen toroxlul seen maître bi su jóotal ko màggal ko moo tax mu ne fàttalikul is qul naa ba ñu waxee lil malaakati ñeel malaaka yi ne usjudoo su jóotal leen yéen ñépp li aadama ñeel aadama su jot ba su jot dunku la fa sa juróomi su jot ñoom ñëpp illaa iblis ndare iblis isis naaw moom xateex la abba moom bañ na wastakbara mu rëylu moo waral wakaana mujj na minal kaafiriina bokk ci xéeféer ya de yàlla ne kon nag màggal leen seen maître bi su jot ba nag su jot dunku la mooy rek su jot nii ni jëkkër bi seen soxna yi di leen koy su jotalee ak na yonentu yàlla yuusufa doomi bàyyi ma su jotaleen ko wax ne woon inni raaytu ahada ashara kawkaban wa shamsa moo waral sujjóot ñaar la dafa am lu ñu tuddee as sujjóotu luxatan am sujjóot shar'an sujjóot shar'an yàlla rek moo ko xeeyoo koo ko defal ku dul yàlla rek génn nga ci diine ji sujjóot shar'an nag juróom-ñaari cër a koy def juróom-ñaari cër ñaari cër yàlla rek lañ ko war a sujjóotal juróom-ñaari cër yi mooy benn ñaari loxo yi ne ràpp ci suuf muy ñett bët woom yi muy juróom ñaari cëtu tànk yi muy juróom-ñaar lii moom koo ko sugatal ku dul yàlla sa sëriñ la sa yonantu la sa xarit la sa jëkkër la génn nga ci diina ji xéeféen bokkaale nga yàlla waaye nag beneen sujjóot boo xam ne dafa manqué juróom-ñaari cër soo ko defalee jublu ca nit ki ku baax la ku màgg la boroom xam-xam la dama caa jublu ngir màggal ko li yàlla def ci moom dara nekkul ci màggal ko màgg dara nekkul ci moo waral ñenn ñi sujjóotal nit di fóon loxo ba moo moo gën a siiw ci Arabie Saoudite defal seen ñenn ñi di sujootal nit teg seen jëba ci maanaam téenq li jëmuñ ci yàlla jubluwuñ ci maanaam ne kii yàlla la dañ caa jublu ne yàlla am na lu def ci man mu ko koy màggale yow la boo xàmmeewul naan bu sujjóot rek génn nga ci diina ji njuumte la ndax kat malaaka yi la ñuy mën a mën a jaamu yàlla ñoo njëkk sujjóotal nit waaye sujjóot ba duutoon juróom-ñaari ceeb dañoo sujjóot sujjóotal lunku ay yonantoo yàlla di ay anbiyaaw sujjóotal nañu mursal muy fukki doomi yaquba ya ak benn sujjóotal nañu maanaam yonantu yàlla yuusufa ak yaayam ak baayam moo tax mu ne inni raaytu ahada ashara kawkaba wa shamsa wal qamara raaytuhum li saajidin mais su jot ba su jotam lunku la waaye nag bu dul boobu boo ko defee ne muy juróom-ñaari cër yi génn nga ci kon nag yàlla ngóog aadamaa ngóog lii sax ci la xam-xam ak jàng juddoo xam nga jàng mënta am mukk lul ñeenti yëf am foo dégg xam-xam am fa am na fa rek ñeenti yëf fa fa ne xam-xam mënta am te fu ñuy jàngee amul muy école xam-xam mënul am lu dul maître buy jàngale am xam-xam mënul am lu dul ay élèves yuy jàng am xam-xam mënul am lu dul programme bu ñu war a jaar ba jàng am ñeent yi bu amee rek xam-xam judd ñeent yëpp nag feeñ na ci yaa aadamu am bi ko fi nga xam ne fa la aadama nekkoon ak malaaka yi pour xamal leen tur yi foofa mooy école ba aadama miñ ne yaa aadamu am bi hum mooy professeur ba malaaka yiñ taxawoon tamit ne laa ilma lanaa illaa maa allamtanaa ñooy élèves ya programme bi yàlla waxoon pour ne nañ ko jàng maanaam te mooy jëmm ju ne luy turam ak li muy jariñ loola mooy programme bi leen yàlla teg kon nag jàng balaa am fokk fu ñuy jàngee am fokk jàngale am fokk ku koy jàng am fokk tamit maanaam kuy jàng lu am bu yi amee rek jàng jub léegi nag ñeent li muy jariñ mooy liñ ciy déggee fokk waajur yi war nañoo xiir yóbbu seen doom yi ci daara yi ñu jàng ñooy ñuy jàngal waaye tamit sëriñ daara yi war nañu góor góorgóorlu ñuy jàngale bañ a tamit di yalwaan loo xale yi di dundee daara yi te fekk dund duñ leen ay bàyyi xale yi mu yendu ci àll bi di yalwaan bu ngoon jotee bu amul nga dóor ko te sa yoon nekkul ci la muy jàng ma naam fukki at te fekk du wàcc xaaj suuf loolu baaxul yaa ngi lor waajuram yi la ko def waaye tamit nag yi di élèves yi war nañoo nangoo jàng bañ di daw jàng daw jàng baaxul day tax benn nit waaye tamit nag ñiy jàngalu ak ñiy jàngale war nañoo fexe tamit ba tabax daara yi place yi am comme ni ñu sonne ci tabax école yi kenn ku nekk nag ki ñii dafa am jikkoy ko yore kuy jàngalu ku ne yaa yore jikkoy yàlla yàlla moo waxoon malaaka yi ñëw leen ngeen jàngi maa leen dugal ci daara pour ngeen jàngi su boobaa nag comme yow da ngaa nekk waajur yóbbu sa doom ci école wala ci daara muy jàng na nga amal njariñ sëriñ daara ba koy jàngal comme ni yàlla amalee njariñ professeur bi mu sampoon pour muy jàngale muy aadama manqué wu lu mu bëgg lépp yàlla defal na yokk naa ay garaatam def na ko muy xalifa ci kaw suuf njëkk koo nekk yooyu ay garaat la li mu nekk jàngale dara tax yàlla def ko ko kon tamit yow boo yóbboo sa doom ci daara saa yoo dajeeg sëriñ daara ba rek dugalal sa loxo ci sa poos yëkkati lu am doole jox ko udduxul yadaka fii jaybika taxruj baydaa baydaa du ndax loolu cent francs waaye taxruj maanaam xadra wala bi maanaam xamra muy 10 000 francs wala 5 000 francs nga koy jox bi ci tegu tamit yow miy jàngale na nga am fulla ci li ngay jàngal ba mel ni aadama ndax jàngalekat yépp dañoo yor jikkoy suñu maam dañoo war a jàngale bañ di taw kuur tamit di grève yi dul jeex boo ko defee ñi nga jàngal dañ nekk ci daar ko xam daal kon na nga nangoo jàngale ba mel ni aadama ndax yàlla ba ne yaa aadama am bi hum rek fala ma an baaxuma bi jam

waaye tamit nag nañu fexe ci ñoom ñett ñi ñëpp góorgóorlu ba daara ji ñuy jàngee am muy place ba léegi nag léegi dégg nit ñi naan waaye école yi nangam ak nangam euh, ndongo yi yalwaan ci nangam yi dama ne fii suñu ne Afrique ci yalwaan la ñuy dund te suñu président yalwaan tax ñu mën a yore réew mi moom kay yalwaan yow wutee rek ba tax ñu naan yalwaan bi tax na nañ bàyyi daara yi kooku njuumte ne dañoo war a war nañ defar daara yi te defar ni ñu yalwaanee ñoom dañuy dugg ay avion ñu dugg ay 4x4 kon tamit nag ñu yore alquran ñi te lañ war a defal élèves yi defaluñ leen ko ñi tabaxal nañ di leen fay at bu jot ay weer wu dee xaalis bu dul jeex amul dara lu ñu warloo ak sëriñ daara yi du place ba du lu leen di jox ñi ci gën a ñu leen dimbal ay saako ceeb boo xam ne bu ñëwee balaa ñëwaat ay 6 mois ñenn ñi sax faruñ ko am te maanaam sëriñ daara yi sa xam seen bopp bu leen ko joxee dañuy nekk di tagg meer ba mu ngi soppeeku ak géwél la loolu tamit baaxul nit day day xam lim am yooyu yëpp bu baax a baax a léegi nag aadama ngoog nekk na xalifaam yàlla li ci des nag mooy fi mu war a duggee aljana yàlla ne ko uskun anta moo tax mu ne wa fàttalikul xul naa ba ñu waxee ne yaa aadama waxee yow aadama uskun dëkkal anta yow laa wax da bëgg a xataf li ci damir zahir da bëgg a taxataf maanaam ismu zahir na nga dëkk aljana yow wa zawju ko ak sa soxna muy xawaa dëkk leen aljana te aljana wa kullaa na ngeen bokk lekk yéen ñaar min ha ci aljana ak lekk goo xam ne raxadan bu naat bu yaatu lay doon xatalul leen ci xaytu situmaa fu leen neexee waaye wala taqrabaa bu leen jege haadihi sajarata gi la garab fa takuunaa kon da ngeen mujj min xaali mi ne bokk ca tooñkat ya de waaye fa azallahumaa tarqiisal na leen ashaytaanu seytaane muy iblis léegi nag ba men tarqiise an haa walis aljanna ja bañ ko léegi nag bañ nekkee ba nekk garab ga fa axrajahumaa génne na leen mi maa kaana ci lañ nekkee woon fii ci xéewali aljanna ya waqul naa ñu ne ñun yàlla ihbitoo wàcc leen yéen ñëpp ilal ardi ci suuf yow aadama maanaam ak iblis ak yépp wàcc leen jëm ci suuf waqul naa waqul na ihbitu wàcc leen baadukum leen ci yéen adduwu noonu lay doon li baax baadim ñeel leen fokk da ngeen nekkante ay noon mënu ci dara wala kum aji nekk la ñaal leen fil ardi ci suuf mustaqarun place bu saxuwaay wa mataaun ak place bu yóbbal ilaahinin ba diir de léegi nag yàlla ne aadama dëkkal aljanna yaag sa soxna kon nit bu bëggee jàmm fu mu dëkk rek moo soxna nga ko war dëkk waaye jëkkër ju dëkk boppam wala soxna su dëkk boppam diir ba yàgg mën naa mën naa jur musiba mën naa yóbboo ca kër ja nekk ci àll ba di détaillé rek wala soxna si nekk ci àll ba di jaay njaayam détail te lu ñu war a jaay en groupe kenn du ko détail rawatina nag moodu moodu yi nekk ci àll bi fukki at fukki at ak juróom ñi nekk bàyyi seen soxna gannaaw lu jeex lii lañ ñëw fekk fa ay doom lii lañ ñëw fekk fa doom ñoom nag lañ nekkee foofu yàlla rek moo ko xam nit ñi tamit comme gëmuñu yàlla loolu mën na leen a dal ku fi jëloon tey sa soxna bàyyi ko fi dem jàngi ñaari weer ñi tas soxna sa waaye boo demee wuti xaalis loo fa yàgg-yàgg maanaam ñi bàyyi la fa kon gëmuñu yàlla kon lu ne foog mu dal uskun anta dañu waxoon aadama mooy àqi jëkkër ci jabar juróom-ñaari xaraf la ku yor jabar foog nga yore meloon uskun anta xamsa gi mooy waqu ku dëkk ku yore soxna da koo war a dëkkoo muy waqu aljimaa moo tax alquran ne nisaaukum xarsun lakum fa atu xarsakum mu anni shitu siin gi mooy sukkunaa ku yor soxna da koo war a timit danga koo war a da koo war a maanaam dëkkoo da nga koo war a dëkkal askinuhunna min haythu sakantum sa yor soxna da nga ko war a waddu moom la alquran ne wa alal mawludi rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf ku yor soxna da ko war a dundal moo tax alquran li yunfiqu du sa'atin min sa'atihi ku yor soxna da nga ko war a faj bu feebaree waaye dee ko laaje biir dee ko yi ku ko defal sa soxna wàccoo ko am léegi nag moom mu war laa delloo juróom-ñaar yi safaan na nangu nga dëkkoo ko yaa ko dëkkal bu mu génn kër gi su lu dul sa ndigal yaa koy reggal na nangu nga regle ko yaa koy faj na la wax luy métti yaa koy laahi biir na la jox noppam yaa ko war a teral na méritoo teranga su ko defee tamit nag uskun anta wa zawjukal janna fa kulaa minhaa ragadan déggee nañ ci ne jox nañ aadama sharia looloo wax lañ ko tinki bëri lañ ko tënk néew aljana lépp la mu yaatu yaatu genn garab kon tamit boo gisee ñun li ñu yàlla tere lu tuuti la boo ko comparé ak ñu digal kon su boobaa garab ga nag ñii ne lii la ñii ne lii la waaye daal boo ko seetee dorox rek la mooy lu bon ga mooy lu bon su ko defee tamit nag seytaane ñëw na jax-jaxal ko ci xisa bu gudd nit ku nekk li nga gën a bëgg ci lañ lay nax dafa ñëw ne ko hal adullukum ala ci ala shajaratil xuldi wa mulkin laa yablaa doomu aadama ñaar la bëgg mooy ñàkk a dee ak nguur gu du ràppati ba mu ñëwee rek nangu loola ci la ko jaaree te soxnaam ba ñu xëy mu génn aljana yàlla ne wàcc leen yéen ñëpp ay noon ngeen doon iblis di seen seen noonu lay doon yéen tamit am noonam ngeen doon yàlla nag wàccee ñii hind kii mu wàccee ko maanaam euh, isbihaan kii mu wàccee ko jidda ñi dox di wërante bi bisab arafa ajjuma ci la maanaam aadama ak xawaa dajee ci bisab arafa ba ci place kon gis nga ko alkuraan na ngoo bàyyi ko dara yàlla ne naan léegi nag danaa leen yor sama yërmande muy sharia ci kaw suuf su boobaa nag bu ngeen ko toppeexee du ngeen am benn problème léegi nag li ci des rek mooy dana leen jox ay baat yu ñuy war a yu ñuy war a topp ba yàlla jéggal